bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursaliin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimul hakiim allahumma allimnaa maa yanfa'unaa wanfa'naa bimaa allamtanaa wa zidnaa ilman assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu alhamdulillaahi allazii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 ya jullit yi nekkee woon waxtu su néew ci ginnaaw ci béréb ya leen yàlla joxoñal ne béréb boobu mooy béréb buñ ko war a mën a jaamu waaye bokk ci xéewal yooyu ba léegi mooy xéewalu nelaw yi nga xamante ne borom bi tabaraka wa moo ñu ko jagleel ñu ni xanaa du ñàkk ñu am nañu war a mën a tegtaloo lenn ci xéewal yooyu bu ci jiitu mooy xéewalu ibaada mooy xéewalu jaamu yàlla ñu ne axa kañ mënees nañ si tegtaloo gannaaw bu ñu yàlla wërsëgale mu may kàttan ak fekkeek tal ba ñu joxe waxtu su am importance te njëriñ ba fa nekk bu ñu ko buur yàlla waxutoon nikonte woon duñ ko doon xam ba tax na mbokk yi bu ñu demee xool ci alquraanul karim ci suratul fajr dinañ fa fekk buur yàlla tabaraka wa muy gëñ di wax importance ba nekk euh, waxtuy fajar rawatina gannaaw bu mu ubbee bopp saar lëmm ci turu kilima bu am dayo bu wee gannaaw bu mu ubbee turu saar ci kilima bu am importance boobee kilima bi nga xamante dañ ne lépp lu suñu boroom tabaraka wa taala xas ba gëñ la doomu aadama yi wara def mooy ñëpp wara a bàbbeeku dem xool ci loolu yàlla di gëñ lu mu doon bu ñu gisee lu mu doon ba pare ñu géem xool ana li waral buur bi tabaraka wa taala ci loolu mu gëñ ba tax na importance ak njëriñ ba nekk ci waxtu woowu buur yàlla giñ subhaanahu di waxtuy fajar ba tax na ñu ne bu ñu demee xool ci alquraan ba yàlla wàccel yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ngir jullit ñi ñu war see war a mën a niitoo ñu war see war a mën a ràññee lépp lu nga xamante ne mooy seeni mbiru diine la yàlla digal yonentu bi mooy nanka leeralal sama jaami ndigle ya fa nekk nanga ko wax sama jaami waaye mboolem xeetu tere ya fa nekk tamit nanga ko leeralal sama jaam yi ba tax na mbokk yi bu ñu demee xool ci njëlbeenu bopp saar suuratul fajar buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi nii di ñu joxoñal waxtu su am solo waxtu wi nga xamante ne mboolem mbindaafoon yi ñoo koy jëfandiku waxtu bi nga xamante ne mboolem doomu aadama yi ñoo koy jëfandiku waaye ana si am bénéfice ji toll ni la tax yàlla joxoñal ñu waxtu woowu bokk na ci jëmm yi nga xamante ni ñooy wuyu wootekat bay woote ci bërëb ba ñuy woote ne rencontation audience ba ñu war a am ak suñu boroom waxtu bi jot na ndax waxtu woowu da di waxtu su am solo fa yàlla importance ba fa nekk njëriñ ba fa nekk lafa nekk ci ay faida wallahi thumma wallahi bu duwutoon yàlla ñu ko wax amul kenn amul lenn ci lu doomu aadama yi di puugarewu ci kaw suuf si ki ñu mun a wax waxtu buubu dayo bi mu am moo tax bu ñu xoolee njëlbeenu bopp saar suratul fajr bur yàlla tabaraka wa mu ngi nii di wax yonent bi njëriñ ba nekk ci waxtu woowu baada audu billahi min alcheytaani arrajim buur yàlla gëñ na ci waxtu boobu mu ne wal fajr wal fajr buur yàlla gëñ na ci waxtu woowu ak njëriñ ba fa nekk buur yàlla gëñ na ci waxtu woowu ak importance ya fa nekk buur yàlla gëñ na ci climat boobu ak yafa nekk ci xeetu njëriñ woo xamante ne bu duwutoon moom yàlla de amul kenn ku fi nekk ku ñu ko nar a wax ndax doomu aadama yi lottu nañ kaa xam doomu aadama yi réeree nañu mbir loole ba tax na kenn ci doomu aadama yi mënuta taxaw di ñu wax waxtu woowu la fa nekk ci ay xeetu njëriñ waaye amul kenn tamit ku ñu fi nekk di ñu wax la fa nekk ci xeetu bénéfice ba tax na xataa am na ñu naan sax bu dee waxtu woowu dee dañ ko doon jaay ni woon am na ñoo xamante ne de wax dëgg neex yàlla duñ si jot waaw dañ ne am na waxtu woowu de bu fekkente ne woon dañ ko doon jaay wallahi am na ñoo xamante ne duñ si jot duñ si mën a jot ndax waxtu woowu ni mu seere bur yàlla ne maa ngi gëñ waxtu bu ñu naan fajar maa ngi gëñ ci waxtu bu ñu naan fajar ci waxtu woowu waaw ndax waxtu woowu de mbindaa foon ya yàlla nattoo ñu xam waxtu boobu la fa nekk ah moo tax mbindaa foon yooyu de dañuy teel a yëglu ne am na waxtu su am importance am na waxtu su am njëriñ bi nga xamante ne mu ngi nii di jaar di jàll waaye ngàlla waaye bu leen ko faat bu leen seytaane mëne ba leen jëriñu ci waxtu woowu te moone waxtu woowu de ci sa giiri dundu dànkaye recevoir muy ñëw di jàll yow mi di jullit xamal ne waxtu woowu de haa lañ la doon woo ngir nga wuyu ko woote bu mag ba ñuy woote naan la assalaatu xayrun min an nawm julli moo gën nelaw bi ngeen nekkee nii waxtu woowu lañuy dugal baat boobu ci nodd wi te mooy waxtu yu julli fajar julli fajar boobu noonu nag xattaa ñu dut ay jullit gëm nañ ne wóolu nañ ne xam nañ ne waxtu woowu waxtu su am importance la ku ko weddi xoolal keroog ba nga jógee di doxantu xool climat bi xool ci biti gis ngeen waxtu wu ñu nekk nii képp ku boot loxoom ci ginnaaw ngay dox doxinu sama xarit ñoo ñooñu Euh, góor yoo xamante ne waaw yàlla def na ne toll nañu ci troisième âge ndeysaan yàlla leen yàlla yokku wér gis nga léeg-léeg nga daje kenn si ñoom mu jóge ko jàkk ja ah macha allah mu daal di boot loxoom ci ginnaaw muy dàggu ci mbedd bi di doxantu léegi-léegi nga dajeek ñoom xool leen nga ne ëscëy xam naa ne de ba mu toll woon diggu dooleem de daawul doxe ni waaye tey jii boo gisee mu yore ñetteelu tànk bi mu di ko mu di ci sukkandiku mu di ci dox amaana mag a ko dikkal yàlla leen yàlla yokk wér moment boobu ñuy doxantu ci mbedd yi ci koñ yi boo leen gisee da ngay xam ne macha allah xam ne màggitum jullit kenn du moom day neex a xool day neex a jëflante waaye day neex a namm waaw xoolal kenn ku nekk su ñun bu ñu yoree suñu maam ci kër yi ni ñuy jëflanteek ñoom waxtu woowu noonu nga gis maam yi ak lenn ci waajur yi yàlla leen yàlla sàmm aar leen yokk leen wérgu yaram waxtu ñu jóge ko ci jàkk ja waaw ñu daal di boot seen loxo ndànk ñuy doxantu ci mbedd yi di xool la xew ci quartier yi gis nga climat boobu day leeral xar kanam rawatina laata noddkat bi di nodd janaaw bu ñuy duppee ginaar walla séq bu taxawee di sab mu yiglu ñu ne moom day teel a bu jënt bi di soo ñu ne fattu na waaye nag muy njëkk a yeew waaw moom muy njëkk a yeew waaw di yuuxu di sabbal yàlla allahu akbar kinaara lu jiitu salaatukat bi di salaatu am na si yenn dikki kaw ñoo xamante ne sawu ginaar yooyu lañuy ñuy chronomètre seeni génn bu dee dañuy tukki moo xam bu dee dañuy génn dem defi lenn ala kulli mbokk yi yan na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot waxtu woowu waxtu bu am importance la waaye bu ñu demee xool tamit dinañu gis waxtu woowu njëriñ bu mu am yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi nii duñu wax mu di ñu wax ci anhu mu ne ñu yataaqabuuna fiikum malaa'ikatu bil leyl wa malaa'ikatu bin nahaar wa yajtamicuuna fi salaati alfajr wa salaati alasr summa yacruju alladina baatuu fiikum fa yasaluhum wa huwa aclamu bihim kayfa taraktum cibaadi fa yaquuluun taraknaahum wa hum yusalluun wa ataynaahum wa hum yusalluun muttafaqun caleyh mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot importance su waxtu wi ñu nekk nii waaye importance su waxtu yi fajar waxtu néew ca ginnaaw képp ku yàlla wërsëgal nga teewee julli fajar ci béréb ba ñuy joxe waxtu wa ca béréb ba ñuy joxe waxtu yu julli woowu di julli fajar te mooy julli suba mooy njël benn audience ba doomu aadama bi di am ak boromam subhaanahu wa taala kaay leen ñu àndandoor ci réew mi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu wi ñu déglu sahaabi bi di abi hurayrata radiallahu anhu lam ñu fa joxoñal ne yonent bi moo ñu waxtaanal importance ba nekk ci waxtuy fajar kon nañ leen bokk àndandoor ci réew mi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi jaar fii ci waxtu wi ñu àndandoor déglu la fi yonent bi tegtal ne waxtuy fajar njëriñ bu mu am ci dundu doomu aadama bi ak yan bindaafoon ñooy nekk di la seede ci waxtu wu an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal jëlee nañ xadis bi ci saxaabi bi ñu abi hurayrata yal na ko buur yàlla gërëm nee na anna rasulallahi qaal naka suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu moo ñu ne yataaqabuuna fiikum malaikatu billeyl wa malaikatu binnahaar nee na dinañ leen nemmeeku ci malaaka yay nekk ak ci guddi ak malaaka yay nekk yen ci bëccëg wa yajtamicuuna fi salaati alfajr wa salaati al dañuy dajek yéen dañuy rencontre ki ci waxtu julli ba ñu naan julli fajar ak waxtu julli bu ñu naan julli takkusaan yonent bi nee na summa yaruju baatu fiikum ginnaaw si ñu fanaan ak yéen ñooñu dañuy yéeg ci waxtu fajar fa yasaluhum wa huwa aalamu bihim ñu laaj leen te ki leen di laaj moo leen gën a xam lam leen di laaj lam leen di laaj mooy kayfa taraktum ibaadi nu ngeen bàyyi sama jaam yi ñu nekkee ko yonent bi nee na malaaka yi dañuy tontu yàlla fa yaquuluun malaaka yi dañu naan taraknaahum yu yusalluun bañ leen doon bàyyi foofu de bañ fa doon jógee de ñu ngi leen bàyyi ñu ngi joxe waxtuy julli fajar waaye bi léegi dañuy tontu ñu ne yàlla wa ataynaahum yu yusalluun bañ doon dikk fa ñoom de ñëw nañ fekk leen ñu ngi taxaw di julli xadis bi buxaari ak muslim dëppoo nañ ne xadis bu wér la mbokk yi ñu war a def tuuti komanteer tuuti taaliqaat lu aju ci la xadis bi di wund maanaa bi xóot na yaatu na waaye ñu tënk ko suñu suñu kémtalay kàttan ci waxtu su néew yi ñu jagleel nii ci waxtu bi bokk na ci commentaire bu ñu war a andi ci maana xadis bi mooy saxaabi bu ñu naan abi hurayrata radiallahu an kon ñu gis ne ndeke saxaaba yi ridwanullahi ajmain góoru yàlla yooyu yan na leen yàlla dolli ngir mànde kenn du ñoom ndeke ñoom dañ doon am jotaay ak yenentu bi sallallahu alayhi wa naam dañ doon am jotaay ak yenentu bi dañ doon nangoo toog ci géew ba yonent bi nekk di leen jàngal seen mbiru diine ba tax na kenn ci ñoom di góori yàlla bi ñu naan abi hurayrata radiyallahu anhu yan ko buur yàlla gërëm moo ñu ne naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu wax ne yataaqabuuna fiikum malaa'ikatu bi leyl wa malaa'ikatu bi nahaar dinañu wuutu wante ci yéen malaaka ya nekk ak yéen ci guddi ak malaaka ya nekk ak yéen ci bëccëg dinañu def ronde ci yéen dinañ leen nemmeeku si dinañ leen dikkee ay malaaka ñu nga xam ne dañuy ronde dañuy dem ko ñëw malaaka yi nga xamante ne ñoo nekk kaari guddi dinañu ñëw nekk ak yéen bi bërset malaaka yi wara nekk kaaru bëccëg dinañu ñëw ci ngoon war a fanaan ak bi fajar moo tax mu ne yeta aqabuuna fiikum dinañu wuutu wante dinañ leen def si ronde waaw kaar bi dina dem beneen kaar ñëw ku ko weddi laajal sama gaay ñi xam ci usine yey changé waate ay kaar ñu ngi nuyu suñu mbokk ya nekk Grand Moulin de Dakar si nuyu El Hadji Mohamed Lamine ak suñu xaritu benn bakken di Mohamed Faye grand El Hadj ñu ngi lay wax euh, jazakumullahu xayran yan na yàlla sàmm aar njaboot ñi suqali daara ji gis nga kaaru guddi bu ñu ñëwee liggéey ba bëccëg ñoom dañuy dem weneen kaar bay ñëw mooy kaaru bëccëg ñoom dañuy ñëw ci suba si kon inspiration na usine yi di dérouler mënees nañoo wax ne ci xadis ba yonent bi ne malaaka yi dañuy wecc wante kaar ci yin fa ko inspiré xalaat bi fa tukki waaye ala kulli xaal yonent bi neena malaaka yay ñëw di rond malaaka yi wuutu wante ci seen jëmm yi ci béréb ya ngeen di daje di julli mooy malaaka yay ñëw ci guddi ak malaaka yay ñëw ci bëccëg nee na wagi wa na fi salaati alfajr wa salaati al waxtu su néew ba ñu jógee koo julli nii di waxtu yu fajar yonentu bi nee ca lañuy ñuy dajek ak waxtu su néew ci kanam bay digmal si di waxtu yu takkusaan ca lañuy ñuy dajek ci jàkka yi nee na summa yaruju alladina baatu fiikum ña fanaan ak yéen nee ñoom dañuy dellu dem fa yàlla bu ñu delloo fa yàlla fa yasaluhum wa huwa aalamu bihim borom bi daal di leen laaj fekk yàlla moo leen gën a xam fa ñu jóge waaye li tax yàlla di leen laaj yàlla daa bëgg malaaka doon seede ci doomu aadama yooyu nekkoon ci sàppe sax ci jàkka ja di joxe waxtu wu am importance te mooy waxtuy fajar ki malaaka yi dëkkee seede ne kii de daanu na teewee fajar ci mbooloo yow manees nañoo wax ne sa mbir alhamdulillah ba tax na malaaka yi bu leen yàlla laajee kayfa taraktum ibaadi ana nu ngeen bàyyee sama jaam yi ana nu ngeen bàyyee sama jaam yi ba ngeen doon jóge ca suuf àddina nafa sama jaam yi nekkee yow mi jóge ko feneen fu dul jàkka ja tontu bi yow sama frère yow mi jóge ko feneen fu dul jàkka ja la malaaka yi di seede ca yàlla te mu doon seen tontu yow mi jógee koo baali bokkoo ci tontu bi de yow sama sœur yow mi jógee koo baali bokkoo ci tontu bi de ay cinq heures du matin ka mu fekk si jàkka ja taxaw muy xale bu góor muy xale bu jigéen mooy képp ku taxaw si jàkka ja di julli walla bu dee demoo si jàkka ja sax bu dee yaa ngi nekkoon ci sa kër di julli waaw sa malaaka yàlla yàlla mooñaale ñoom mun nañ laa seede waaye yow mi dem ci jàkka ji nag la malaaka ja jóge ko ci jàkka ja la yàlla di laaj kayfa taraktum ibaadi ana nu ngeen bàyyee sama jaam fa yaquluun dañu naan taraknaahum bàyyi nañ leen waxum yu salluun fekk ñu ngi julli ñu ngi taxaw ci sàppe si di julli buñ doon jógee ko ci suuf de ñu ngi bàyyi sa jaam yi ñu ngi joxe farata fajar bàyyi nañ sa jaam ñu ngi am audience bu toll ni la tax nga sàkk leen bàyyi nañ sa jaam ñuy joxe la tax nga bind leen bàyyi nañ sa jaam ñu ngi taxaw si jàkka ja di joxe njëlbeenu audience bu ñu am ak seen borom ñeneen ñuy ñëw ci waxtu takkusaan ñomit it bu leen laaj yàlla laajee kayfa taraktum ibaadi ana nu ngeen bàyyee sama jaam ba ngeen doon jóge ko ci suuf nu ngeen bàyyi sama jaam yi ñoom ñu tontu yàlla ñu ne ko wa ataynaahum wa hum yusalluun bañ leen doon fekk si ñëw nañ fekk leen ñu ngi taxaw ci sàpp si du julli mbokk yi kon ñu gis ne ñaari waxtu yi bi waxtu mën naa fekk nit ki muy topp bànneexu bakkanam toute la nuit ba keroog fajar kon yow mi noot sa bànneexu bakkan ba waxtu ya malaaka yi di seede doomu aadama bi fa la mu di la fekk ci sappe su njëkk sax mu di la fekk ci jàkka ja mu di la fekk nga taxaw ci ginnaaw imaam di déglu la imaam di jàng ngay def moom melokaan mu julli ñaari rakay fajar yow la malaaka yi di seede fa yàlla seede bu tollu ni dañ naan yàlla ataynaahum wahum yusalluun wala taraknaahum wahum yusalluun yow mi noot sa bànneexu bakken ci waxtu yi julli takkusaan du la fekk ci téereem basket du la fekk ci téereem football du la fekk ci arenba ba du la fekk ci làmba du la fekk nga concentré ci leneen ci lu dul waajalal julli takkusaan yow la malaaka yi di seede fa yàlla keroog bu la yàlla laajee kayfa taraktum ibaadi yow la ñuy seedeloo fa yàlla malaaka yi ñooy doon seede fa yàlla di la seede ñu ne yàlla ataynaahum wa hum yusalluun bañ doon ñëw ca àddina fekk nañ sa jaam bi mu taxaw ci jàkka ja ci sàppe su njëkk muy waaja ànd imaam di julli waaye sa jaam bi de keroog taraknaahum wa hum yusalluun bañ doon jóge ko ci àdduna de fekk nañ ko walla bàyyi nañ ko julli na fajar ci ginnaaw imaam mu ubbi kaamilu alquraan muy nab nabi gis nga malaaka yi dañuy dem ka ñëw dañuy dem ka dikk taraknaahum bàyyi nañ leen waxum yu salluun fekk ñu ngi julli kon malaaka yi duñu seede keneen ku nekkut di julli waxtuy fajar waaw seen màndute àgg na duñu seede keneen ku nekkut ci jàkka ja di julli foo nekk yaa ko xam noo fa nekkee yaa ko xam seen yoon nekkut ci loolu yow mi ñëw ci jàkka ji bu malaaka yi di yéeg ci kaw de yow lañu naan yàlla tarak naaxum bàyyi nañ leen waxum yu sol solloon ñuy julli yow mi nekk ci terrain football yow mi nekk ci arène ba yow mi nekk ci terrain basket ba yoonu malaaka yi nekkuñu si yow ci waxtu julli takkusaan ku ñuy seedee fa yàlla ne fekk nañ ko muy julli takkusaan mooy ku ñu fekk si jàkka ja moo tax fii tamit ñu ne ko wa ataynaahum bañ leen doon fekk si de ñëw nañ fekk leen wahum yusalluun ñu ngi taxawal julli takkusaan di ko julli kon yow mi dëkkee du julli fajar ci mbooloo ak yow mi dëkkee du julli waxtuy takkusaan ci mbooloo yow la malaaka yi di seede fa yàlla ñu naan yàlla sa jaam bi de keroog bañ doon jóge ko ci suuf bàyyi nañ ko ci jàkk ja mu taxaw di julli yow jaam bi yow lañu malaaka yi di seede fa yàlla ñu ne ko wàcc fekk nañ ko mu taxaw ci sàppe si muy julli kon mbokk yi bokk na ci commentaire yañu ñu war a mën a commenter hadis bi mooy ba léegi malaaka yi képp ku ñu seede fa yàlla ci waxtu yi fajar kon yow mënees nañoo am yaakaar sa mbir keroog bis pénc waaye képp ku ñu seede fa yàlla ne yow yay ki bàyyi xel waxtu yu julli takkusaan bi léegi mënees nañoo am yaakaar sa mbir keroog bés pénc ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa ñaari waxtu yu julli yi ak yeneen ñetti waxtu julli ya des ci bés ba yal nañu ko yàlla kattanalal yal nañu ko yàlla jàppandalal ñu di ko defee comme ni mu nekkee ñu di ko joxe ci waxtu wa ci palaas ba ci béréb ba ñaan yàlla suñu boroom